salaamaaleykum mbokk yi ñuy teewlu ci euh, suñu Actu TV jërë ngeen jëf ñu yam mbégte bu baax a baax kii du ànd ak yéen saa su nekk di leen dëgtal xibaar yi tukkee ci biir mi rek tey ci euh, arxemes yemoo ko ñetti fan ci weeru novembre doon bés mi nga xam ne rek nga daal dinay euh, marqué euh, ci histoire Sénégal ndax l'opposant le plus puissant au Sénégal di Ousmane Sonko moom la ñu euh, fas yéene rek daal di auditionné ca tribunal bu Ndakaaru euh, déglu ko nag ci fond dossier bi nga xam ne euh, dix-huit mois sénégalais yi am yaakaar ne war nañoo mën a rek àtte yëf yi ngir ñu mën a xam fan la wànnit di mujj ak i gëtam mu di dossier euh, présumé viol ak menace de mort gi nga xam ne rek Adji Sarr daal dina ko koy euh, tuumal euh, coow loolu nag jotoon fii daal di juddu mars deux mille vingt et ba fukki doomu aadama ak ñeent jotoon cee ñàkk seen bakkan Ousmane Sonko nag xëy na ba daal di dem waaye laata muy dem gisoon nañu nekk jafe-jafe la woon ci te kër góor gi démb ci guddi ba léegi rek. dañu ko daal di eh, barricade ay eh, policier ak ay gendarme yoo xam ne rek ñoom ñoo wàcc ci mbedd yi eh, cité kër góor gi jafe woon na ngir nit daal di fay am accès ba ci sax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ña dëkk mënuñu woon am accès ci seen ay dëkkuwaay ña liggéeyi woon ba wàcc wala ñu waroon génn dem liggéey jafe-jafe la woon ci ñoom Ousmane Sonko nag daal di xëy ni ki tey ci suba ba dem wuy ji ginnaaw douze heures ca tableau ca euh, bureau de euh, juge Maham Diallo la ko na euh, daal di fekk ñu gis ne mbooloo mu takku daal dinañu koy topp laataaka mbooloo moy topp sax buntu këram. may ñu woon benn journaliste mu daal di fay am accès ci jafe-jafe goo xam ne rek jot naa dox ci digg takk der yi ak journaliste yi ci lankal leen bakkandaar ne duñu fa taxaw ab jàppante xawoon ca daal di juddu journaliste yi jàpp ne seen liggéey la ñuy def te kenn du leen xoqatal ba tax na rek dañu ci def li ñu ci war a def ils ont droit à l'information ngir informer li leen di sénégalais yi ci noonu rek lañu ñu gisee ne Ousmane Sonko daal dinay def boo xam ne rek juróomi oto ko la daal di àndal ñu gis ne rek ah, tey ci ay takk der yi génn ah, jéggi na dayo ah, bip GIGN gendarmerie police sapeur pompier national ñoom ñëpp daal di nañuy génn wàcc ci mbedd yi waaye ñu gis ne dañu daal di rek ànd ak Ousmane Sonko jaarale ko ci corniche bi. comme fiñ ko bëggoon jaarale mu bañ ci jamono ji ñu ko war a woon njëkk a déglu ci février ci mars le 3 mars 2021 foofu la ñu ko mujjee rek daal di euh, jaarale tey euh, ci ab convoi boo xam ne rek euh, daal dinay indi jafe-jafe ci wàllum circulation waaye Ousmane Sonko mujjee na àgg ak jàmbu ca tribunal bu Ndakaaru ca tribunal boobu la ñu yaa desandi ndax gis nañ ne mbooloo mu takko takku ñu ngu fa ngir ñëw daal di soutenir Adji Sarr la ci ëpp itam ay taskati xibaar lañ yoo xam ne ña nekk fële ca buntu tribunal ba ca siège nga xam ne rek jagleel nañu leen ko ñoom taskatu ah, xibaar yi ci noonu rek la ñu gis ne ña ngay taal seen ay kam amal ay live ku nekk rek yaa ngay ah, commenter ah, ci anam yu ko sentiré waaye tribunal tey am na jafe-jafe goo xam ne rek nit ñi mënuñu fa am accès ba ci sax ñi nga xam ne amoon nañu fa ay audience tey yëpp dañu kaa daal di renvoyé li ko waral moom moo di Ousmane Sonko ak mbooloo mu takku moo ko fay xaar ngir nag lu jëm ci wàllub sécurité ka aar askan wi moo tax rek ñu daal di annulé lépp lu di audience ngir càmbal cambal jafay nekk ñu mun kaa daal di wàññi waaye gis nañ ne euh, buntu tribunal ba am fa accès sax yombul ndax fa ñu sànni journaliste yi sax jege na lu dul ni ko rek en face la mais fu xaw xëcc la. ñu gis ne rek euh, li nga xam ne moom moo di buntu euh, tribunal ba ba ca lu ko wër waaye itam la ko tàmbale ca université ba wàcc ca tribunal euh, Colobane foofu yëpp dañu ko daal di rek barricade ay policier takk der journaliste takk der maanaam gendarme policier bipp ak ñëpp rek ñu ngi fa ngir fas yéene rek dal di teewlu lu ñeel kaaraange askan wi tey ci le 3 bu ñu gisee ne que Ousmane Sonko àndul moom kase blessé juróomi oto jot nañ ka daal di ah, topp waaye itam leader yu ah, coalition Yewwi Askan Wi jot nañu caa daal di rek andi ku ci mel ni maire bu Ndakaaru ah, di Barthélémy Dias nekk itam député assemblée national ci bannière coalition Yewwi Askan Wi Barthélémy xëy na teel daal di dugg ci ab dem kër Ousmane Sonko ci ab convoi boo xam ne amal na ko ànd ak ay garde corps am waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñoo koy filmer ba mu demee ba cité kër góor gi rek problème woon problème la ci moom ngir mu am accès ca kër Ousmane Sonko ci noonu lay xam le takk der yi na leen may seen chef euh, en tant que maire de Dakar nekk itam député mënoo leen ma xañ samay droit damay circuler nu mu ma neexee laata ministère de l' di leen jox ay ordre wala mu nekk seen seef man euh, Barthélémy Dias may seen chef ndax man naa nekk maire de Dakar nit nag dafay xam boppam balaa ñu koy wax boppam te xam leen seen bopp te ngeen bàyyi Ibrahima Diallo yooyu lay kaddu la daal di wax takk der yi ñu daal di koy bàyyi mu jàll waaye dañu ko lankaloon ne duñu ko bàyyi mu jàll moom ak ay garde rapproché am ak ay chargé de commune bu àndaloon moom rek la ñu bàyyi euh, mu daal di duggu waaye laataa ñu koy bàyyi rek jafe-jafe la woon ci moom ñu gis ne du moom kese Déthié Fall itam euh, moom dafa daal di rek bàyyi ab voyage ba mu doon amal ci ab nemmeeku bu mu doon doxi digganteem mag euh, les sénégalais de la diaspora ci le 26 octobre ba le 13 novembre la ko waroon amal Déthié Fall nag nee na moom moo jël ak roppalaan ñëw daal di soutenir ki lee di Ousmane Sonko ci bésub tayam bi nga xam la boo xam ne euh, képp ku bokkee ci euh, kujje gi da nga ko cee war a jàppale waaye laata muy am accès kër Ousmane Sonko jot naa jàppandi ak takk der yi ñu daal di koy findu nag maanaam avertissement lañ ko jox moom Déthié Fall euh, di ko xamal place am di ko wax fa mu war a yem ñu gis ne mbir ma yemul foofu ndax ci lu ñeel ca tribunal bu Ndakaaru maître El Hadji Diouf gis nañ ko fa muy euh, jaabante rek ne ku nekk ci meeting euh, di yëkkati loxo ya mel ni rek koo xam ne dañ ne ko yaay vainqueur bi euh, maître El Hadji Diouf ci ay dem ak dikk yoo xam ne rek daal dinay attirer attention wu ñi fa nekkoon ci direct yi nga xam ne taskati xibaar yi ñu ngi ko doon def ba tax boobu le video sax ñu daal di koy dagg partager ko ñu naan maître El Hadj Diouf lu mu xewle ndax dafa yëg lu nit ñi yëgul maître El Hadj Diouf nag yemul foofu dal di nay euh, convoqué taskati xibaar yi nee na dafay daal di amal am ndajeeg taskati xibaar yi lu ñuy tuddee conférence de presse ginnaaw abu mu génnee ca tribunal bu ndakaaru dakaar dem dikk yi daal di nañuy suspendre tey yenn ci seen ay ligne euh, dakaar dem dikk yoo xam ne rek waroon naa daw li ko waxal mu di. dañoo jàpp ne rek saa bu jëya amee ñoom ñooy nekk cible yi ba tax rek ñu euh, bëgg a lu ni mel euh, bu ñu sukkandikoo ci les écoles yi wane rek ne bisub tey yi ñu sénégalais yi bàyyee nañ ko xel ci lu war a am wala loo xam ne yaakaar nañu ne rek à tout moment war naa mën a am mu di ab dégénération ba mu jur affrontement yu métti métti waaye yenn ci ay école privée itam tey dañoo daal di tëj seen ay buntu ngir mën a rek daal di euh, protéger seen ay euh, élève euh, gis nañu ñeneen ñu nekk ci ku gi ñëw di soutenir Ousmane Sonko ku ci mel ni docteur Babacar Diop nekk maire bu Thiès moom mi ñu gisoon ci lu yàggul dara muy petoog président Macky Sall ci ay nataal moom moo jug nag ngir soutenir Ousmane Sonko dal di xamle ne Ousmane Sonko e victime d'un complot politique boo xam ne rek. ñoom pare nañu ngir daal di koy euh, jàppale ci audition bi nga xam ne ci la euh, nekk tey waaye tam ci lépp loo xam ne rek lu ñu koy euh, préparé la ci lu ñëwagul fileeg présidentielle yu 2024 mu mel ni kàddu yu docteur Babacar Diop rek dafa daal di duut baraamu tuuma nguurug Sénégal ci bëgg complot Ousmane Sonko ba daal di koy daaneel. waaye ñoom ñëpp ne nañu pare nañu ngir compatir euh, ci Ousmane Sonko ginnaaw docteur Babacar Diop docteur Abdourahmane Diouf moom itam dal dinay def ab publication ci Facebook am di wax ne euh, président Macky Sall na euh, arrêté di soisir ay adversaires politiques na arrêté di manipuler la justice à des fins politiques waaye Ousmane Sonko dafa dal di victime ci ab complot politique te ñoom ñëpp danañu compatir pare ngir jàppale ko. ci audition bi mu nekk ndax ku ne xam ne ni Ousmane Sonko dañu ko daal di tooñ tuumaal ko eh, ci wàllum euh, viol ak menace de mort gu ñu koy euh, jiiñ euh, waaye pare na ñoom ñëpp ngir daal di koy jàppale. ci jooju le jamono président Macky ne nee ñu nekkul Sénégal daal dina jël gros planam rek ba dem. ngir nag nekk ci ay mission boppam sénégalais yi di wax ne rek li ñu seetlu moom moo di président Macky xew-xew yu mel nii saa buy am ñu war a auditionné kilifa wala ñu war a daal di rek atte ab dossier bu mag boo xam ne ah, ñeel na way politique yi ca tribunal bu ndakaaru du fi daal di nekk lum ci ah, mën a doon rek kenn xamul ndax dafay daw làqu ji wala tombe waral ay gaaf waaye ah, ci xibaar bi nga xam ne rek biral nañu ko président mak Sall ci jamono ji ñuy waxee ak yéen nekkul Sénégal